alhamdulillahi alkarim silmiman ala istiqaali bi furudin wa sunan alhamdulillahi alkarim silmiman ala istiqaali bi furudin wa sunan sakartu li'anna qad saxani li watani bi nafa maa qani waxaadani ilay bitaani min baadi ma sababi taxayri wa jarrani fii ilal ulumi wal fawsi wal amali bil mahrumi summa salaatu bi salaamin tabia ala allasi xasiya an tabia xalal la si man bi maraadi ixtada fi sirri wal jaari yakunu muxtada huwa allasi haajara lil madina bi amri rabbi fasaana diina wasilati li maliki rafiici muhammadin xayril wala safiici وآله وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم هسا وين اليوم يا dañoo war na coono comme su ngeen nu dàppee di nu faj di joxe garab di ñàkkuñu ci dara ñu ngi di sant waaye nag Sëñ Tuubaa la ñu sant moom mi ñu fi indi yaakaar wëndi ko moo tax lii lépp ñu di ko am ah lépp sëñ Tuubaa nu ko indil sant nañ yàlla bu baax ak yont sant ak sëñ Tuubaa sant it sëñ Cheikh Ndiaye mi nekk fii nga xam ne moo sët fii moom moom ngeen di dàpp mu dinu woo ci ñu ci booleeg yéen ngeen dinu faj kon nag mu sante yàlla yont bi sëñ Tuubaa di ko sant bu baax di ñaan mu yàgg fi ci wér yàlla yàggal ko ak teraanga ak ak wér ak njabootam. ñoo ngi leen sant bu baax. ndax seet seet nga sa yaram ba pare. sant nañ ma seet nañ ma dox nañ may garab. Mhm. yebal nañ ma jéemu. Mhm. su ma demee jox ma kay may faju te duma fay dara. kon loolu loolu léegi sant la moo tax may sant yàlla bu baax di leen sant. waaw suñu bàcc yow faj nga ba pare. ma ne faj nga ba pare. waaw faj naa ba pare. nan nga gisee jëf ji.

bi seen seen yëpp seen yaakaar bi yaakaar ba nga xam ne moom lañ ko bi seen waajur suñu borom may leen kàttan bu mën a wax jigéen bu mën a wax waaw moom la ci ñaanal xale bi amiin amiin jërëjëf ñu gudd ànd ak ba li yéen a liggéeyal suñu borom yegg na ñu ko seen yëpp ndax lii li fi xale la waaye di fi mag ndax saa seet yoo xam jaar moom du dëkk ak jëf mu jëf jëf mel nii saytu wér-gu-yaram ci bokk ak doomu aadama kon bu ñu jógee si dundu doomu aadama yëpp seet fi nga xam ne fa la ñu gën ne yooyu doole mu ko fa defee kon jëf jëf du rëy la jëf du rëy la day ñaan ci kàttan Sëñ Tuubaa fu mu bëgg a yeggali yàlla ko Sëñ Tuubaa jëf gi day lu bari na ko moyens faj yi ñëw na. kon nag jógee ah, dugg ci askan wi ngir dimbali ci wàllu paj mi rawatina na loo xamante ne dañuy tawat ñenn ñi amuy hôpital ñenn ñi ragal. ba mu def ne lii wala wala leneen. ay dogal boo ñëwee si mbir mi dugg si xam. xam ne lan la xam ne dinaa yokk dimbal leen ëllëg koo ci gis ci taw boo xam ne laaj hôpital ngay wax ne choix hôpital dama def daa day xam ne hôpital bi dara lu may faj rek pour wér lii nag ñëpp ko war a def ndax yàlla nii la su fekkee politique kese la mooy lii politique bi am solo kon daal la ngeen di lancer message daal wane ne daal waaw waaw loolu la ñu war a daal nekk sa dëkk waxuma la képp bonne volonté foo mën a nekk lii ku koy def ku ne na la wér ne si jaam yàlla sëkk la képp koo xam ne mën nga di ko def moo xam nguur gi wala ONG wala ku mënti doon dafa am solo lii ma sax kii waaye dañoo waral chaque année ñu fexe incha daal ci gàttal lu am solo daal xañ na lii am nañu ko mën te defuñu ko ndax ñenn ñi seen mbir feneen lañ ñi feneen waaye euh, ñu yor urgence ñu leen jox euh, union des général générationnel pour la construction et l' émergence du Sénégal. ñoom ñoo def lii. loolu nag euh, dafa am solo ndax nit su wér garam du dox jàmm yàlla du sot liggéeyam du sot. Euh, suqali am réew kon nag ñii moom ku yebbu fu ñu mënti nekkit suñu borom yàlla liñ bëgg ci lii yàlla suñu borom defal leen ko bu kawe seen jot. mbàkk yi yàlla yàlla suñu Fallou Mbacké def taw feex di leen di liggéey yàlla leen barkeel jëf ji rafet na daal jëf ji rafet na ànd naa ko teg yàlla na yàlla ñu ngi teew fii tey ci Daaru Marnaan seexaw bi ci moomeel sëñ Abdourahmane Mbacke xam ne njabootam a fi nekk di sëñ Mbacke Daba Sarr ak njaboot ak sëñ Modou Mbacke Darou Manane yëpp di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk di ñi nga xam ne itam ñoo fi nekkante jiitu sa borom waaye fa suuf seen kaw taal seen barke yokk seen leer ñi fi des yàlla bàyyi leen fi te wéral leen teew nañ fii tey ci jumaa yi Daaru Marnaan ci Seexu eh, ngir benn journée culturelle boo xam ne bii eh, gratuite la eh, moom lañuy defal ñi nga xam ne ñoo fi nekk di néew ji doole yi ak ñi nga xam ne dañoo am ay tawat te seen loxo jëru seen ginnaaw gone yi nga xam ne njabootu paate lañu di ay doomam di Moustapha Seck Moussa Seck eh, di njaboot ak eh, Basirou Seck kenn ku ne xam ko eh, ci dëkk bi ak ni mu toll ak kan mooy Basirou ak njabootam di saytu lu mel nii dugg ci dëkk bi di dem ci quartier yi dem ci gox yi di génn nit ñi di leen faj gratuitement di leen may ay garab di leen consulter ah di topp too seen yaram bu baax a baax a baax a baax te dara waralu ko lu ngir yàlla ak jëmbi sëñ Tuubaa ak jàppale sëñ Tuubaa ci dëkkam bi Euh, loolu mooy li nga xam ne moo ñu fi teewal biñ ko defee noonu ba noppi itam lépp dañ ko wékk ci baatab euh, seen kilifa di seen nijaay di seen baay muy alaaji Paate Jaxate Paate Jaxate bi nga xam ne euh, fépp waay ne tey dox ngir yàlla tax ngay dox ngir lislaam ngay dox ngir jàppale doomu aadama yi bu ko yëgee ak bu ko yëgut loxo ma ngi ca ndax loolu rek mooy li ko ñor xale yooyu dikk jagale ko bis bi mu ànd ak ñoom jàppale leen ci bis bi yebal ñu fi ñu dikk teew fi gis jataay bi gis nit ñi nga xam ne ñoo fi teew suñu xol seet na ci guy ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp euh, looyu itam boo gisee mu di ko def mooy jàppale président de euh, président Macky Sall ngir euh, li nga xam ne moom la yéene ci dëkk bi yéene ko ci njaboot bi yéene ko ci askan bi muy leen may jàmm may xéewal lu leen mucc loolu rek moom la kenn ku ne def ci loxoom ngir jàppale président Macky Sall ngir ëllëg 2019 ñu mën a gañe réew mi 100 pour cent ba mu eggali yéeneem ak mébétam ci doomu aadama surtout nag Tuubaa Mbàkke yi nga xam ne fi xolam nekk fi bëgg-bëggam nekk fi la nekk ah mu doon loo xam bëgg na yàlla may ko ndam ba mu àggale loole ci kàttu yàlla te mën a am benn doom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp nag waaye lii daal jëf la joo xam ji eh, wax dëgg yàlla eh, ñi nga xam ne fekk nañ fi daal da waa daaru mën naa daal ñëpp a ngi sant ko gërëm wax ne lu mel tey la njëkk mboolem ñi fi xam ne wéradi woon nañu jóge seeni kawi lal ak ñi nga xam ne di nga am danoo mënta dox ñu andi leen ci sareet ak andi leen ci ay wota yëpp seet nañ seen yaram la ca war def na ko ca seen yéene joxe nañ leen ay garab defal leen lépp delluwaat leen ci seen biir néeg ñu ngay sant yàlla bu baax ñi war a pikiru pikiru noonu ñu war a naan garab naan nañu garab. asalaamaaleykum jërëjëf tonton Thiam wax dëgg fa yàlla gis nañ taxawaay bi comme ni nga ko waxee sànq rek Moussa Seck président mouvement bii di urgence di organisation politique boo xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba Sénégal gi ñu dëkk jëm kanam suñu réew mi di Touba suñu dëkk bii Touba bañ ci des ginnaaw loolu nag buñ ko waxee dañuy fexe ba politique bi ñu def ñu def ko mu nekk une politique de développement fexe ba nekk askan bi gën a ñoŋ seen wàllu wér-gu-yaram seen wàllu liggéey ak seen wàllu nekkin. loolu moo tax ñu amal lu ñu naan benn forum socio communautaire amal ci ay journée de consultation gratuite moo nekk nii suñ ginnaaw woo askan wi gone mag ak ndaw seet leen may leen ay garab ci loo xam ne duñ ci fay dara. amal tamit ay formation yoo xamante ni association de jeunes yi ak groupement de femmes yi dinañ leen former ci ay filières yu bokkul lu mel ni transformation céréales fruits et légumes savon eau de javel ba pare nag euh, defal leen loo xamante ni nii dispatching par groupe. def def ci projet wuti financement bi ndax am réew kat bu fekkente ni ku xiif lekk ku mar naan ku bëgg a faju faju boo amee sa soxla fajal ko sa bopp ci li liggéey réew moom buñ ne la mi ngi dox nga ne effectivement mi ngi dox waaye bu fekkonte ni ci tali la ñuy dafa dugg ba ci suñu biir néeg hôpital yi nekk suñu buntu kër te bu ñu xëyee duñ lekk amuñu luñ liggéey tamit réew mu dox loolu nga xam ne nag ki ñuy jàppale ñu ñëpp muy le président Macky Sall mu ngi ciy def ay effort rawatina fii ñu dëkk ci Touba li ñuy wax suñu slogan mooy lu ñu fàng kenn du ko jeex ñu mën ci teg suñu bët ñun ñi nga xam ne dañ koy jàppale dañ koy wàccal nag ci base bi dem ci nit ñi def ay action yu leen jariñ muy action sociale tey jii ñi ngeen gis nii muy délégation bu jógee ci tonton Pathé di suñu papa di suñu lépp muy loo xam ne relation personnelle bi am ak sama papa damaa judd fekk ko fi man ñuy dox ba dajewaat ci relation politique ñaar yooyu kon incha allah dinañ ko consolider transformé ko ba mu nekk njëriñu askan bi nga xam ne ñun ñëpp moom lañ fi nekkaan jërë ngeen jëf merci beaucoup